yeesal sama kóoluteef ci sama sëriñ Cheikh Ahmadou bàmba waaye nuyu suma rak suma xarit Abdoulaye Daouda Diallo ministre des finances du budget ak ñi mu àndal ñépp liggéey bi directeur yi duma leen citer euh, ci li nga xam ne indi nañ ko ak euh, ministre en charge de relations yi ak institution yi mais ma sant suma groupe parlementaire d'abord sant groupe de l'opposition après sant président Ablaye Wade ndax moo ma njëkk a yóbbu parlement CEDEAO j'étais premier suppléant ni ko Cheikh Seck waxe remplacé Cheikh Sadibou Fall après Bamako moom ak Kumba Ba ñoo ma fekk hôpital ma tëdd ñu andil ma samay document yàlla dogal bi ñuy dem Abuja mënumaa dem ñu dellu si quelques mois ñu dissoudre assemblée nationale man revenir wuma ci législature boobu assemblée moo tax delluwuma mais 2007 sama xarit suma président nekk président de l'assemblée nationale désigné ma ma bokk ci délégation bi 2007 avec Macky Sall président de l'Assemblée nationale yàlla def 2009 su ma baay su ma xarit Ablaye Wade dàq ma 2009 lañ ma dàq dàq ma février fii dàq ma mai Abuja xeex bu metti ma def fa discours bu rëy ni leen maa ngi dellusi loolu moo tax ñu plébiscité ma pour am troisième vice président bi ma dellu see 2012 may dem ñu waajal ma fii groupe parlementaire yi président de la république président de l'assemblée nationale gunge ma trois motions lañ ma fale man lañ ko jëkk a defal gëmatuma ne keneen dina ko am parce que nag ndaw rabin ji des na ndax waa Sierra Leone a ngi ñëw ah gars yi nee naa leen waaj leen rek mais defe naa ne du am président bu mel ne man moom mënul ne parce que yëf yi du ay diplôme diplomatie la loolooyu xam nañ lool damaa am suma galgali bopp mbooloo muñ ma jox danaa leen takk li may wax ñu koy wax te du ma xeex ak ñoom tàng naa mais du xeex di chambre de commerce ministre baa ngi nii 60 millions de budget man Sénégal man rek maa ko fi yor dawal daaw ba mu jeex dese quarante quelque million ñoom ñu jël ko jël trésor man leen indi leen waaye suma yëf chambre yi am un milliard mënuñoo def seen problème man ma def li ma war a def desal nañ koy wax man damay def di desal moo tax ma ñemee audit leen ma audit leen ma fii boo nee nañ audite assemblée gars yi ni ah daa compte nga ni audit dañu war a xool lu ñu dénk nit kan lañ ko jox nuñ ko defee man audit nañ ma ñaari audit 2018 cabinet allemand ñoo ko def xam nga lu ñu gis président bërki démb la may wax ñu ma ne ma conférence des chefs d'État nee nañ sa président bi daa jënd Mercedes s cinquante bu cher maa ni ko bi ma ñëwee dama ni leen bu mel ne bu président de la république yi ak président commission yi ak oto bu ñu may escorté 4-4 Prado pour samay alkaati ak jëndal ma 4 Camry pour samay vice président la ngeen may jëkk a defal président ni ma dañu nee nañ dañu ko cher man leen laaj leen ñu ko jënd man du ma jënd damay wax li ma bëgg rek ñu def ko ñay jeex nag nañ jeex ndax noonu la kuréel giy doxee la ma liggéey jant la bu fenk ñépp a ko wax gannaaw wax nañ ko tàccu ma fal ma tàccuyaat ma may remercier député yi ma àndal ñoom Ibrahima Baba Sall Ndoye ñoom ñi leen Lamine Thiam ñi fi jiitoon ñoom ñoo jëkk a def motion ni nañu ñu tàccul président groupe yi defaat tàccu pour ma dem maa ni nañ dem defi réunion d'évaluation boo xam ne dañuy xool li ma def lu ci baax ak lu ci baaxul yore lu ma kenn un dollar ndax mosuma laal xaalis du ma gérer man damay autoriser rek ndax damaa délégué sama pouvoir loolu dafa war a leer loolu dama ko ci dugal pour delloo leen njukkal am na lu ma waxoon dootuma ko wax wutatuma post fii vice président gi bu ngeen ko bëggee seet leen kenn ma jox leen ko suba li ngeen ma defal mën nañ ko quatre fois euh, ñu fal ma def ma parlement CEDEAO dama leen a gën bi ñu ñëwee ba léegi vice président premier deuxième Macky Sall jërëjëf dama doon bëgg a sant rek sant naa leen. sant président Macky Sall te ànd ak monsieur le ministre cette énième modification de la loi de la loi de finances pour prolonger les délais de mise en œuvre effective du budget programme ne me semble pas être une bonne chose et je comprends aussi votre gêne monsieur le ministre c'est pourquoi je voudrais proposer à l'opinion et au Parlement monsieur le ministre je voudrais proposer que la parce que nag gis nañ problème bi ñuy am par rapport ak date bi ñu jox indiwaat modification et là je pense que pour vous soulager on peut bel et bien amener la date au 1er janvier cela au moins devrait vous permettre de mieux vous préparer et à mon humble avis monsieur le ministre on ne peut pas pour un même budget avoir deux approches différentes et deux approches de, de, de, de gestion là ce que nous constatons c'est que la première, la première euh, est axée sur les moyens et l'autre euh, sur les résultats à travers le budget programme. Et Monsieur le ministre, très sincèrement, cela fait défaut. Et c'est juste une question de bon sens aussi. Monsieur le ministre, tey li ñu gis nag mooy da ngeen ne pare ngeen waaye pare à 75 pour cent amul pare à 50 pour cent amul pare moom 100 pour cent la rek. dañuy pare 100 pour cent ñu dem pare wuñ 100 pour cent nañu toogaat ñu tax ñu taxawaat et nag monsieur le ministre li ñu gis foofu mooy que ni nit ku nekk nit nga. yéene am na bëgg-bëgg am na mais dafa am foo xamante ni comme mbiru nit la du mbiru yàlla dañ ko fay yemale rek te ñuy nangu di reconnaître aussi que ni am na loo xamante ni mënuñu guñ mënaguñ si dem et cela monsieur le ministre je pense que bu ñu ko defee en toute humilité ñun ñoo siy màgg rek ñun ñoo si am hauteur mais ñun ñoo si atteindre suñuy objectif aussi et cela dit monsieur le ministre je voudrais euh, monsieur le ministre je voudrais très chers collègues aborder le nga xamante ni moo ñu frappé ñun ñëpp et ça concerne le dépôt des rapports de 2015 2016 2017 monsieur le ministre kenn comprendre ñëpp a jaxasoo fi ñu nekk nii et question bi ñëpp di gën a laajte mooy à quoi va à quoi va nous servir ce dépôt là monsieur ministre ay rapport dañ fi jaar ñu ne teg nañ si kudd tey bu ñu xëyaatee indil ñu ay rapport li ñuy gën a liy njëkk ñëw suñu bopp rek mooy que ni dañuy laajtew ban lan mooy utilité wu rapport yooyu tey jii ni monsieur le ministre et sur cela j'aimerais revenir sur nag ñoom seen siège parce que defe naa ñun bi ñuy dem 2010 fa mu taxawoon fa mu taxawoon fa la construction bi taxaw ba tey bëggoon naa aussi xam exactement kañ la ñuy livrer loolu. monsieur le ministre tey li ñu gis que ni mooy li ñu gis mooy manque manque d'intérêt et de considération pour les finances publiques mooy lépp rek li ma doon wax léegi et j'en reviens. cour des comptes yooyu tant que joxuñu leen seen gëdd dëggantaan defe naa du ñu mën a imprégné wu dëggantaan si lépp et monsieur le ministre euh, la dernière question est-ce que réellement. le siège de la Cour des comptes pourra être terminé et livré aux magistrats. Euh, quest éventuellement, si possible, on aimerait savoir qu'est-ce qui bloque. Monsieur le ministre, j'aimerais aussi avoir des, des explications. le Parlement doit savoir. Monsieur ministre, ñun ñuy toog fii tey dañu ñu te bu ñu génnee dañuy rendre compte te bu ñuy rendre compte nag ne serait-ce que pour yow épargner la yenn yi nit ñi de dal sa kaw à tout bout de champ war nañ mën a xam yenn yi monsieur le ministre je en vous demandant de, en vous demandant de consacrer plus de temps et de rigueur sur la gestion des deniers des deniers et des affaires publiques même si nag ñëpp xam nañ que du affaire u nag du moomeelu benn Bokk Yaakaar monsieur le ministre li ñu gis tey defe naa su ma si taxawee war nañ si wan waxtaan on est en parlement monsieur le ministre rapport yi ñu déposé ko 2015 2016 2017 mais nag defe naa monsieur le ministre bu fekkee ne dafa am rapport yu ko jiitu woon ñu gis que ni. dañu promouvoir même ña nga xamante ni rapport yooyu tuddoon na leen waxuma dafa épinglé kenn nag mais am na ñu mu si tuddoon tey jii ñu promouvoir leen defe naa loolu rek war na nekk question boo xamante ni sénégalais war nañ mën a ubbi seen bopp pour xam que ni régime bi ñu jàkkaarlool fas yéene wu ñu liggéey je